bayal sa waar bayal sa waar bayal sa waar bayal sa oh bayal sa waar bayal sa waar bayal sa waar bayal sa oh bayal sa ñëpp di siisu teewul ñuy bay sunu waa mu dooree sunu weewu tànk mu tate doo dégg yaana maar kaa ñu bay su xali koom-koom engagement citoyen doon sunu moyen si jeunesse bu am jom investissement si santé environnement sama goog soxla bay sa waar ko mouvement buy muuf di jàppale askan wi mu jot ñu jóg jéggi benn level gestu gëstu askan wi si li leen ñu tël volet éducation ak sport ak culture dekkal ka ri yow li fi doon rupture. ci turu bénéficiaires jot euh, am chance subir formation bi les mains dans la tech mu nek formation bu am solo parce que dañ toll ci jamono bu ñuy wax globalisation mondialisation nga xam lepp dafa nek ben lepp dafa ubbeeku digital nek lu incontournable lo xam ken mënu ko kenn mënu ko natable bu ñu jëlee tànn ñu vraiment tàggat ñu ci compétence numérique comme ni ma ko waxee léegi kon vraiment bay sawaar ba gën a doomi Tëngéej ñun ñiy bénéficier wu ci formation bi vraiment ñu gën a xarañ mu nekk suñu wàllu liggéey mu nekk suñu wàllu àdduna kon ba tax na bu ñu tàggatee ñun tam aussi war nañ gën a mën a sensibiliser d'abord suñu ay moroomu ndaw yi ñu nekkal fexé tam aussi ba lolu nekk njariñ ci wàll yépp ci suñu citoyenneté numérique dama koy wax chaque jour suñu employabilité parce que kumu mu ngay liggéey di nga gëna performo kumu aussi nga denc say diplôme wala nga am ay compétences yenen dina la yau tax yow sa walu liggéey wala sa walu demal sa bop muy entrepreneuriat ak lenen ding ci gëna liñu ñu war a mën a wax bari na mais peut-être que ci biir après ak yeneen i récipiendaires yi dinañ mën a am yeneen euh, yeneen témoignage vraiment je tenais à remercier au nom de tous les bénéficiaires geste bi bay sawaar def te nga xam ne mënuñu ko qualifier on a ni les mots amuñu amuñu ay ay ay termes yu ko mën a yu ko yu ko mën a yu ko mën a firndeel di wax jërëjëf jërëjëf merci beaucoup à Baye Sawar li ñu gis li ñu ràññee li ñu constaté mooy malheureusement xale yi amuñu xëy mu nekk préoccupation donc képp koo xamante ne da ngay def politique wala da ngay def mouvement citoyen wala da nga nekk rek ci dëkk bi di observer loolu war na nekk benn préoccupation boo xamante ne da nga ko war a intégrer

ak c'est notre partenaire ne war nañu mën si yu yi ne euh, kenn kuko kuko kuko bu ko kuko nga si jamono yi ñu tollu ñu identifier ne di digital war na mëna nek lo war nañ ci mëna tagat xalé yi indi bi partenariat nous avons donc def processus de sélection Nous nous euh, internet ñi am ay euh, ñi postuler envoyé leen ay ay messages ay mails ñu recevoir réunion d'information def entretien mais saluer aussi rigueur processus de sélection bi nga quatre sessions de formation d'aller daal di tàggat 96 xale yu Tëngéej bu ma juumul donc ñu def formation bi mat nañu 96 donc loolu ñu ngi remercier bu baax a baax a baax Simplon ci féliciter vraiment apprenants yi. Sur le euh, directeur général dans une entreprise sur la place, j'ai voulu euh, participer à cette formation pour booster, inspirer, motiver les jeunes qui ont euh, envie d'apprendre, qui ont des idées de projets

Euh, très décomplexé. ensuite nous spécialisons parce que def une infographie def une création de site web def une euh, community management def une marketing digital donc je pense que kenn a ci spécialité pour vous. donc pourquoi pas le continuer en solo ou bien en équipe cela dépendra de votre euh, volonté le xool ban moo la ci bien sûr en partenariat avec euh, Simplon bien sûr avec Faysal. benn ci démarche simple moi naka la ci gox démocratiser l'accès au numérique te mën naa wax ni Le mouvement Bay Sa Waar moo permettre cela. te man bi ñu partenariat bi nii dama suivre C'est l'occasion aussi de dire combien je suis impressionné ci naka la équipe BSAWA porté projet bi ak organisation ak rigueur maa ngi gis ñom Abdou Fall dañ doon liggéey di def ay réunion après 20 heures pour organiser formation le résultat moy def nañ formation bu ci ayib je pense que euh, lii ce n'est que le début euh, xamna bu baax président Abdou Karim Mbengue te xam naa ni bay sa waar ci tëngéej wuyu na président parce que mi ngi bay waaram ci tëngéej président am nga njariñ waar bayal sa waar ci tëngéej bayal sa waar bayal sa waar bayal sa waar ci tëngéej bayal sa waar bayal sa waar